benn euh, déclaration boo xam ne mu ngi jóge ci l' actuel président du conseil départemental ngi Guinguinéo muy monsieur Pape Malick Ndour euh, bi nga xam ne ñoo bokk benn parti euh, mu nekk déclaration boo xam ne nag man séentuma ko ci moom parce que nag dañ ma olof yi dañuy wax ne uudee bu dee wax ci béy bu feebar dañ naan derwaa tax mm-hmm. mënoo nekk ci mandat nekk di wut deuxième mandat ah ñeneen ñi def seen déclaration de candidature nga ne leen du ngeen ko fi waxee wala boog war leen ko fi waxee da ngeen war toog déglu parti bi ñun ñëpp ci parti la bokk waaye nag suñu sañ-sañu bëgg ak bañ du kenn ku ñu koy tere dañu am ambition liggéeyal parti bi nag dañ ko liggéeyal bu wér Sénégal yëpp xam ko parce que fii ki fi njëkk nekk député man mii la ñoom ñi leen dimbale ba tax ñu nekk li ñu nekk surtout nag moom kon tey bu toogee di wax dek def déclaration ne moom waaw vraiment d'accordul ci euh, candidature yu bëri fuite en avant la ñun dégluwuñ ko xooluñ ko faaliwuñ ko ci loolu l' essentiel mooy bu nee benn dinañ ko ne fukk taxaw ci ko taabal ci parce que élection lañ jëm te li ma wax rek nee naa leen la bataille de Guinguinéo aura bel et bien lieu amul kii amul kaa nit ku ci mën dara moom gisuma ko soobee yàlla tiit na lool lool lool lool position bu inconfortable man dama la bëgg wax ci daanu la toll xam nga nag man dañuy wax ne garab moom buy daanu bu ko sax jege wóorut garab buy daanu aussi day bëri bruit ku ne dégg na ko yaakaar naa ne actuellement nii li mu war a def mooy fexewoon ba bàyyi bilan bu rafet fii ci département bu Guinguinéo ci conseil départemental bi. gestion bu lëndëm këris parce que man mi di wax ak yow bu ma nee damaa jiitoon liste di ma war a gëm comme xam kon kon kon kon conseiller la waaye attaque dara laa fa topp parce que benn budget laa fa wote mais ma xool ni ñu ko élaboré ak ni ñu ni ñu exécuté budget bi dalul sama xel. bu gestion bi demee noonu kon man damay toog croiser les bras toog di ko seetaan gis nañ fi yu bare bare ba ci a wane du ko ndax yi nekk ci bañ xaw a tartel budget mu nekk di ñaan gars yi lu ne mu ci dugg fëne bañ mujj ko sarax pour mën a voter budget yooyu yëpp am na fi ci ay par le passé tous ces tous ces éléments là on les a hmm. am nañ éléments yëpp dañuy toog xaar nag le moment venu ñu ñu ko ñëpp gis ko muy lu ñaaw tàpp naa ne sax xëy na mooy seul département boo xam ne amul permanence départementale man loolu laa hmm. parce que dëkk yi ma jot dañ yëpp fu ma demee gis naa ñu def permanence bu taaru bu rafet am na ñoo xam ne sax utal nañ ko sax kër jëndal ko kër def permanence waaye fii de en 2010 kon cinq ans yi nga xam def nañ ko ci assemblée ñu ngi doon fay suñu permanence léeg sax dama am ay arrière parce que mënoo si nekk seul député du département Guinguinéo amoo benn ressource pratiquement bëgg a couvrir tout le département di a fay chaque fois moo ci am mooy ñoom comme permanence bi def leen a rendre service fa lañ leen falee falee fa président Macky Sall falee defa fa référendum falaat fa président Macky Sall ci deuxième mandat bii kon loolu dañu waroon wormaal Guinguinéo wormaal parti wormaal président de la ñi fi nekk ay élus di cotiser sax bu ñu ko mënee def ngir continuer permanence boobu noonu waaye lii lii preuve mooy tey bu ngeen ko photo wala ngeen def fa filmer ko di ngeen gis ñu bind permanence départementale de l'APR waaye kenn ka yéen ngeen gis ñu def fa. Hmm. loolu nag dafa ñaaw. Hmm. parce que Mandiaye moo jëloon engagement l'actuel député ne daf koy fay mais lim ko fay matul 6 mois mu dellu mënatu ko fay waaw bu fekkee yow nee nga nag député